fa nekk nga additionné département yooyu nombre d'électeurs yi day représenter cinquante cinq pour cent vous avez bien retenu le chiffre cinquante cinq pour cent du fichier électoral cest à département yi ñu gagné boo jëlee seen nombre d'électeurs additionné leen day représenté cinquante cinq pour cent yi nu amagum boobu cinquante cinq pour cent donc ça veut que ñoom lii nga xam ni tey jii nii moom la ñu amagum ñoom faites la différence day doon day doon quarante cinq pour cent voilà les chiffres xam nga en mathématiques les chiffres sont beaux quand vous les présentez tout le monde comprend et amul manipulation moo tax koy gis muy wax te waxul chiffre rek xamal ne mi ngi manipuler nombre de département la gagné trente jóge fa dem waaye kii lii ñu def nii defuñu ko parce que mënuñu ko def et jàpp leen bu baax li ma leen di wax nii pourquoi parce que après les cent douze députés yi nga xam ni moo nekk ci département yi ta ñu dem avec l'intercoalition la formule bi ñu teg en place disputé ak ñoom loolu très sérieusement ba wàqi leen fa wàq yu metti dafa am cinquante trois yi nga xam ni mooy la liste proportionnelle liste proportionnelle mooy ku nekk bu ñu jëlee suffrage bi nga am au niveau national en absolu dañuy xool en relatif lan lay tombeel c'est-à-dire que bu fekkee ñun dañoo cumuler lépp mu doon cinquante pour cent ou soixante pour cent intercoalition bi loolu la ñuy jël multiplié par cinquante trois yi mu jox nu nombre de députés yi ñu am ci cinquante trois yi nga xam ni mooy liste proportionnelle bu ko defee ku nekk pourcentage boobu la lay appliquer donc cinquante trois yi des fa la jëm et lii boo leen ko xoolee ni mu tëddee ak tendance bi muy jëm ci liste proportionnelle boobu war nañ fa mën a xaar vingt huit députés liste proportionnelle boobu moo tax ñu leen di dànkaafu parce que on est en train de suivre on sait que am na ay départements yi nga xam ni présentement ñoo ngi jéem a gonfler pour mën a li ñu leen wàqi ci département yi ñu jéem ko rattraper ci proportionnel yi parce que c'est à ce niveau que ça va se jouer moo tax département périphérique yi nga xam ni nen ñu mooy seen titre foncier ce qui n'est pas vrai parce que gis ngeen ci beaucoup de départements yi nekk te jii nii au Fouta ni fa intercoalition bi ñëwee différemment de ce qui se passait moo tax on est en de suivre de très près parce que la correction bi ñu bëgg def ñoom c'est à ce niveau pour mën a gonfler suffrage yooyu mu mën a ñëw ci liste national bi mën a rattraper ou permettre leen ñu décaler donc moo tax on est en de suivre mais aujourd'hui projection yi à ce niveau day doon vingt-huit au minimum faites la somme de cinquante cinq plus vingt-huit ça vous donne combien Ça vous donne un mine de 83. L'Assemblée nationale, c'est 165 la majorité. Voilà ce Donc au moment où je vous parle, l'intercoalition Yewi la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Que que les Sénégalais grâce ak seen ñambar un grâce ak seen haute intelligence et ça je le dis président la haute intelligence des Sénégalais man ça m'a pas surpris parce que waxoon naa ko fii que dans le comprendre schéma grâce à leur haute intelligence ils ont renvoyé Benno Bokk Yaakaar à l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale donc jàpp leen tey di opposition parlementaire bi biir assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar la majorité parlementaire foofu assemblée nationale intercoalition Yewwi Wàllu la loolu mooy dëgg ci te loolu naka accepté kon président de l'assemblée nationale ci intercoalition bi lay joge Macky Sall bëgg que ak mu bañ que opposition mooy doon deuxième personnalité du pays loolu la yàlla def loolu la yàlla def donc naka nangu jàmm am dañuy alerter nag kilifa yëpp yi fi nekk ci lii nga xam ni c'est mathématique nit mënu ko bouger loo ñu bàyyi xel ci fi Macky Sall jëm te ma madame Mimi ture annoncé ko dem parce que du jàll te lu leen wax ni du jàll rek du jàll xam ngeen ko lu ñu war joxe pour mu bañ a daal daan ko joxe parce que ay surseeg ay tëj ñaaleeg yooyu tey wuñu askan bi moo nu ko jaral kon nanu bàyyi lii nga xam ni askan bi dafa teel a jóg topp ñu fépp ci campagne bi xaar nu ci nawet bi xaar nu ci naaj bi jox ko opposition bi nanu bàyyi loolu ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu bañ ko changer ci préfecture yi bañ ko changer ci tribunaux yi bañ ko changer conseil constitutionnel après conseil constitutionnel li mu jot a def comme ñoom donc nanu bàyyi li sénégalais yi bind mu demee noonu kon lii mooy li ñu leen bëggoon présenter pour résumer que en cinq minutes en français c'est pour vous dire tout simplement que Madame Mimi Touré vous l'avez suivi hier a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays alors que dans le décompte des départements gagnés par Benno Bokuyakar, il à introduire au moins trois départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Goudom, Sédou, Tibavan et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yehui-Wallou.